d'où la nécessité de se parler Absolument. comme ni ko comme ni ko comme ni ko président waxee parce que tamit am na loo xam ne est-ce que du lu ñu war a moytu c'est-à-dire vous allez dire le deux ah, c'est-à-dire boo leen duggee ci contestation euh, naan le deux et d'ailleurs ça m'étonne même que yow ak xalifa Sall euh, parce que am na si ñoo xam ne amuñu benn expérience de la pratique de l'État euh, amu amuñu benn expérience pour sur la scène politique euh, voilà ils bombent le torse tout tout le temps mais ça m'étonne même que yéen ngeen di euh, dugg ci gaam boobu parce que li mu nar a induire comme situation mën na gën a garaaw liñ nekk di di kii nii imaginez ñu duggaat ci moment de tension maintenant que le pays s'est calmé depuis que le conseil constitutionnel a rendu sa décision ñu duggaat ci moment de tension ñu ne woy le 2 avril Macky Sall n'est plus un président illégitime il doit partir n'est plus un président légitime il doit partir bu Macky Sall démissionné on entre dans une situation euh, d'intérim. Qui va assurer l'intérim Le président de l'Assemblée, Amadou Mam Diop. Il a trois mois euh, pour organiser l'élection. Mais balaa càkk kay euh, situation bi c'est une situation qui se présente Macky Sall mi nga xam ne moom moo nekk à la tête de l'État avec toute l'expérience requise pour mener ce genre de situation ngen bàyyi ko mu organiser l'élection et dans les concertations vous vous battez pour que l'élection se tienne le plus tôt possible demain pense il va arrêter la date des élections mais da ngeen ñu nar a dugalaat ci porox ndoll euh, Amadou Mame Diop il est président de l'Assemblée nationale c'est un euh, fonctionnaire compétent et tout mais il n'a pas le un millième de l'expérience de Macky Sall pour organiser un État euh, tenir les délais tenir les administrations ma dama lay wax tout à l'heure booy wax ak man ak yeneen risques yi ci làkku yëpp mais xam nga booy wax ak man dafa mel na ñun ñoo créé problème bi je rappelle que créé leen problème bi je rappelle que problème bi ñuy dund nii c'est Macky Sall qui l'a créé de toutes pièces et lu mosul am Sénégal convoqué naa électorat bi tey retiré naa sama décret ba ñu def nga dem suba ñu sanctionné la au niveau du conseil constitutionnel bu dee lii nga lii la bëgg na taxaw suba wax sénégal yi ne man kat maa juum je présente mes excuses aux Sénégalais je pensais bien faire maintenant il faut qu'on redresse les choses j'adresse mes, mes mes excuses à toute la classe politique maa ngi jéggalu nërmali woot naa une deuxième fois ça au moins avec la complicité de certains leaders de l'opposition dégg nga certains recalés commencé nañu assumer carrément xam nga bu njëkk ba ba ñu waxee report bi dañoo tiit ñoom ñëpp ñu daw kenn ñemeetul wax waxu report de de l'élection dellu siwaat nañu à la charge di mettre la pression sur le président de la République pour que ñu rebattre les cartes. c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. dama lay wax benn affaire. moi Khalifa Sall est mon candidat. je considère que c'est le meilleur des candidats. je considère que moom il a la pratique l'habileté pour gérer un État je considère tout ça. mais aujourd'hui au moment où je te parle quel que soit ce qu'il peut dire et ce qu'il peut penser. il n'a il n'est investi il c'est pas lui qui est investi de la charge de président de la République. mais bien sûr. Macky Sall rek moo am signature bi il faut pas ñu dem wuti ay bouc émissaire fii ak fële c'est lui seul dans le secret de son bureau qui a signé un décret d'ailleurs la preuve denc na décret bi pendant 48 heures kenn gisul décret bi. mu ne di far naa sama député maa woote woon le 25 dindi naa woote ba ma defoon le le 25 ça c'est Macky Sall qui l'a fait. donc la situation bu ñuy dund aujourd'hui nga xam ne situation de non-droit nga xam ne même le conseil concerné bu ñuy rabattre aujourd'hui man ko daa waroon woon def li waroon def li le conseil ne pouvait rien faire on l'a mis dans une situation bu mu comprendre moom